Zulu Mbaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax awa. alors ngay artiste peintre nekk njiitu kuréel euh, gi ëmb artiste yi nga xam ne ñoo nekk ci village des arts bi nekk ci dakaar euh, ki nga xam te ne nag mooy Khady Diène Gaye muy jëwriñ gi nga xam te ne dénk nañ ko lépp lu jëm ci wàllum jeunesse euh, tàggat yaram waaye tamit aada ak cosaan nga foog ne liñ ko boolee du wàññi tamit li nga xam te mooy valeuru u aada ak cosaan. d'abord maa ngi koy féliciter di ko ñaanal mission bi ko mu mën ko doxal euh, ni ko artistes yi bëggee artistes yi on va les appeler yi donc euh, loolu laa koy ñaanal mais pour venir euh, ci sa question yaakaar naa ni nit ñi dañu xaw a yàkkamti man mbir bala ma koy critiquer wala ma ci am benn xalaat bu objectif damay xaar ba ñu wax ma lu nekk ci biir parce que dañu dégg rek ni ñu annoncé nañu ni ñu culture ak jeunesse ak euh, sport ñoom la ñu boole ci benn ministère yaakaar naa ministère bu war a rëy lay doon ndax xanaa boole wuñ leen loolu rek pour euh, parti bu ci nekk ñu jox la pàcc bu ndaw mais yaakaar naa ni ci boole boobu du tee euh, parti bu ci nekk am sa gëdd. am taxawaay bi nga war a taxaw te bu fekkee loolu lañ ko jubloo man aw ma ci dara lu may wax mais nag daal maanaam je reste à ma fin xaw ma nu ma koy traduire ci wolof parce que jébbal nañ ñu mbir mi noonu ñu ko tënkee mais ñu lu ci nekk ñu lan lañ ci nar a def kon nag comme dañuy teel tàmbali nañu xaar ñu wax ñu luñ ci namm ndax dafa am loo xam ni itam dafa xaw la jekk bokk nañu ak euh, yeneen ñaari département muy sport ak euh, jeunesse mhm. mais waaw ñooñu kenn déggu leen mais acteurs culturels yi ñoom culture dafa mel ni ñoom dañoo teg seen bopp feneen foo xam ni dañu na bëgg a suufeel yeneen euh, parti te jeunesse dafa am gëdd boo gisee sax ñi falu ñu leen fal mooy xale yi sport itam dafa am gëdd ndax tey foo dégg Sénégal d'accord culture lal na loolu mais tey itam sport bokk na ci am na ci jéego bu am solo mhm. donc damay xaar daal ñu wax ma fu ñu jëm bu ma xamee fu ñu jëm ma xam am na ciy alors euh, li nga xam te nag mooy kër gi ñu dénk wàllum euh, jeunesse département sport yi tamit ak aada ak cosaan ndax mën nañoo xalaat ni ay yi war nañoo mën a tamit euh, jouer rôle association sportive waaye tamit culturelle. waaw mais loolu moo nekkoon seen seen rôle seen seen jeu temps yi nga xamee ni vraiment am nañu taxawaay bi ñu war am. parce que bu njëkk man euh, am naa tey maa ngi sama soixante-dixième année mais en les années soixante-dix quatre-vingt association sportive et culturelle yi ASC comme ni ñu doon leen tuddee seen taxawaay dafa fesoon bu baax a baax a baax mais politique bi mu war a àndal pour dynamiser ko moo xaw a euh, ñàkk solo ndax léegi boo demee ci région yi da ngay gis batiment bi rek ñun la fii mooy centre culturel mais dara amu fa ni équipement ni budget boo xam ni dana mën a euh, ànd ak acteur culturel locaux yi nekk foofu jàppale leen léegi daal dafa mel ne ay bâtiment yenn la ñuy tabax yoo xam ne pour ay ngénteeg pour ay mariage lool loolu seen njëriñ donc la dañu dévoyer un peu seen rôle et que ñu dellu ci formule boobu yaakaar naa ne ñu xoolaat yaakaar naa dina am solo. Mm-hmm. parce que mbir yi du nu ñu tudde rek. mais luñ ciy dugal yow yaay kan yow mi ñu tudd ni culture yan cër lañ la jox ci yan pàcc ngay doxee loolu moo am solo donc man maa ngi xaar bu baax nouveau gouvernement bi xam naa ne am nañu volonté nuru nañ ko loolu la ñu won mais nag euh, li ñu naan lekkatu kese na xuli béy mm-hmm. il faut que boo nee lii oto la itam nga nañu kii moteur bi la kii mooy chauffeur bi koy dawal waaw loolu moo am solo mhm. mais nag oto ngi nii rek oto moom bu amul la ko war a yóbboo itam du dem fenn. alors ndax euh, fi mu toll nii euh, jëriñ gi dina mën a suivre nag euh, activité yu bëri yi nga xam te ne daanaka aada cosaan moom la ëmb moo xam art plastique bi littérature théâtre ba ci musique bi. mais loolu lañ koy doyee loolu la ñuy xaar si moom. Euh, il paraît que ci monde sportif bi la gën a bokk mais nag euh, xam nga gestion moom dañu koy jàng toujours te surtout ngay déglu ndax loo xamul aussi nga ñëw fekk am ñu ko xam di leen déglu di wax ak ñoom di leen laaj seen xalaat daf ciy baax ñun na tàmm nañu bu ñu la falee rek nga ni buur laa lu ma neex laay def wala nga am rëyuk doo waxtaan ak ñi nga war a waxtaanal ba da ngay jàdd yoon wi nga xam ne ci nga waroon jaar ndax kenn benn xel doyul nit da ngay wax surtout booy defal nit dara parce que dañu naan li ngay de li nga may defal boo ma ci boolewul dafa mel ni defaloo ma ko waaw vous connaissez la traduction en français mm. donc ñu impliquer les acteurs culturels ci démarche bi yaakaar naa ni dina tax ñu gën a xam fu ñu jëm te bañ a nekk ci kaw rek comme lañu ñu fi gisoon man buur laa wala nga jël ñii ndax da ñii da nga am foo leen teg ndax ñoom peut-être ay waxkat la ñu dañuy wax li leen ñor ci fi ñu bokk nga ni ñii daal xëy na dañoo àndul man wala ay ñe am na ñoo xam sax dañ naan ay rebelle la ñu defal la benn réputation boo xam ne yow sa taxawaay yëpp mooy pour liggéey bi baax rek waa ndax man peintre bi fa may naane sama kafe mooy sama liggéey sama pinceau ci suma at atelier donc yaakaaruma ci leneen lu dul sama liggéey boobu ñu jàppale ma ci ba ma mën koo def mais laajuma leneen waa ak par exemple boo gisee aussi may wax lu bari ci biennale de arts bi bëgg mu baax la rek mais fii Sénégal moom ku yore kër bu ñu tuddee kër ga nga ni man lañuy man la ñuy wax du déedéet du loolu dañoo bëgg jàpp ci kër gi ndax comme ñun nga koy defal war nga cee laaj suñu xalaat ñu wax la suñu xalaat bu ko defee yaakaar naa ni day gën rek mais du ci yàq dara mm-hmm. waaye jox la kër rek nga def ko sa moomeel def ko nu la neex nga koy doxee te loolu nag gis nañ ko fi ba bërki dem boo njaay lool moo fi xew waaw wala ñu jël ñoo xam ni ñoom lañuy jox cër yu mag yi ñi ci des ñu fàtte leen waaw te loolu itam nag euh, taxul ñuy fal njiit. alors lan ngay xaar nag ci gouvernement gu yees gi rawatina statut de l' bi nga xam te ne boobu ba tey amul. mais xanaa ñu déglu ñu parce que statut de l' ay loi la yu ñuy teg waaye loi yooyu dafa am lu leen di firndeel dafa am maanaam seen yuq mooy lan ko mooyal seen yuq mooy lan. artiste bi tey bu feebaree du faju euh, artiste bi tey dafa am ay problème yu bëree bëree bëri yoo xam ne euh, euh, ci société bi la bokk donc société bi war na ko jox cër donc ñoom itam biñ ñu wooyee yëgal ñu ni président signé na décret bi pour ñu am statut de l'artiste loolu rafet na trop c'est un premier pas parce que euh, ndab da nga ko da nga koy raxas ba pare boo ko raxasee ba pare nga wax nga wax nag li ngay def ci biir wax jooju ci biir nag moo des ñu woo ñu boole ñu ci lan la mooy sunu xalaat li war a dem si ndab li bu ñu ko defee rek yaakaar naa ne xëy na li ñu bëgg de dinañ ko am ndax fii dañoo mën a voté loi lool te loi ba dara du ca nekk parce que man dëkk naa lu bari xam naa lan mooy statut de l'artiste moo tax jarul ñu ñuy euh, firil ay raaye di ñu wax def nañu loi bi mais loi boobu lu ca nekk loolu moo ñu intéressé te tant que waxaguñ ñu ko dañuy toog di déglu rek mais dañuy jàpp ni rek lu ñu ñu xëlantoo la mais waxaguñu lan la ñuy lan lañ ci jot lan lañ ci am. alors nga célébré yàggul dara say cinquante ans de carrière yàgg na ci li nga xamante ne mooy wàllum art plastique euh, jamono ji ak jafe-jafe yi ngeen di jànkonteel lan ngeen soxla réellement ngir mën na nag dund ci seen art. waaw li ñuy soxla mooy lu mel noonu di fi am. ndax euh, sama juróom fukki ati aar yooyu ma doon euh, célébré dëgg la am dafa am ñu ci jàpp am na waxtaan bu ma jaaroon sa kër googu ci jamono yële passé waxtaan si ci li ci Maroc féete hmm. li ci état Sénégal fii ci état senegal féete aussi waxoon naa la ko mais ñun lu mel noonu la ñuy xaar ndax loolu mooy soqali sunu liggéey waaw dañoo am ay projet par exemple biennale de arts mu ngi nii di ñëw weer moo ci des ak semaine ñoo ngi wax ak ñoo ngi doon wax ak ministre Alioune Sow bi fi jógee parce que dañu am ay artistes yu jóge ci àdduna bi di ñëw village des arts bi may jiite am nañu ay artistes yu jóge île de la Barbade c'est dans les Caraïbes am nañu ay artistes yu jóge Nigéria Suède Maroc Guatemala mais fii li fii am toujours moo tax euh, projet yu mel noonu bi ci bari dañu koy euh, forcer un peu mooy bala ñuy génn li lay jàppale dañuy xaar ba ni suba la wala ginnaaw suba la maa ngi wax ak waa ministère de la culture nag pour xamal leen ni ñun lii la ñu am te tedd nga boobu nga may laaj ci sunu liggéey ci lii lañ koy amee te ay citoyen lañu comme àdduna ñëpp. li ñuy wax ak ñoom pour ñu jàpp ci dañu bëgg rek ñu def ko ànd ak ñun ndax ñun dañu am féete boo xam ne dafa xaw a particulier ñun ay ambassadeur lañu ñun on participe à la visibilité de notre pays artiste sénégalais fu mu taxaw ci àdduna Sénégal la fay taxawee par exemple boo gisee équipe nationale bi li ñu leen di defal liñ leen di jox condition yi ñu leen di tëralee ba ñuy mën a indi ndam ci réew mi yaakaar naa ni muy peintre yi muy cinéaste yi muy comédien yi taxawaay boobu la nguur gi war am ci ñoom parce que loolu tam bu ñu ko teg nee mel comme du ñam wu ñuy lekk rek waaye xay xay na ñamu xel la ñamu taxawaay doomu aadama la te loolu mooy li war a jiitu ci doomu adama bi pour mu mën a xalaat ay développement économique ak leneen parce que loo am itam boo amee milliard te dundewoo ko ci sa culture jëloo sa culture comme taabal bi nga koy teg du am njariñ ci yow wala doo ko yëg da ngay mel ni kuy sàqami rek te loogoo dara kon nag nañu jox cër aar bi art bi nag du du folklore bi ñuy def nii rek am na feneen fu mu féete fu am solo foo xam ne ci la ñuy nawe te it dañoo war a xam lan mooy sunu identité sunu identité art rek moo nu ko mën a moo moo ci moo moo koy mën a jox taxawaay moo koy mën a rafetal nekkinam te ñu xam ni mbaam gàtt na waaye ci jur ki la bokk. ñu bañ ñu fàtte. alors en tout cas Zulu Mbaye euh, jërëjëf may fàttali rek ni artist pentre nga waaye tamit jiite kuréel gi ëmb artist yi nekk ci village euh, des arts bu Dakar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen remercier bu baax jërëjëf.